ba tax na monsieur le ministre damay wax ak yow ci affaire siège groupe ñu ngi leen jox 45% lañu wara am lool du lu ndaw ci société bo xamni c'est une société de souveraineté nationale bu loolu amee yaakaar naa ni autorités yi war nañ am benn fermeté bu doy pour vraiment que li nga xamni mo fi que ñu respecter sen engagement yi envers l'État envers les travailleurs surtout parce que le secteur de l'eau ce n'est pas le secteur de l'enseignement moindre faille mën na fi indi yeneen problème yoo xam ni kenn du xam fu ñu koy indi ay soulèvement indi donc monsieur le ministre ak fermeté biñ la xamone avec vraiment l'éducation bëgg nañ fermeté bobu nga continuer ko dans ce secteur monsieur le ministre gis nañ ak SDE li ma doon wax SDE li fi amone moy que gisone nañ tout ce qui est technique ingénieur et distribution sénégalais ñoko yoré won donc ñun les travailleurs là war nañ def de telle sorte que nous di ñëw place seen gëdd ñu jox leen ko parce que depuis presque la moitié de leur contrat benn nit lañ d'après les informations benn tubaab moo fi di def sénégalais donc ñooñu vraiment il mérite respect te actuellement 1200 employés lañ wax moo fa nekk te doyul nous il y engagement pour les 1200 là en plus recruter encore du personnel parce que jusque là il y a des postes qui ont été dañ ko donc pour soulager les travailleurs il faut aussi nous recruter monsieur le ministre